salaamaaleykum waa medina yéen ngi biir Thialé Shop maa ngi nii ci MTV chaîne médinoise yi loo leen bëgg xam ci Thialé Shop rek waa daagu si leen daal ba MTV ngeen abonné dëgg neexul ñu ay doom Médina lañ te maintenant lu mu organise dañ cee war a bokk. waaw man Thialé Shop MTV mooy sama télé mooy télé médinoise te man doomu Médina laa kon neex na.